ça va. ça va bien bien merci. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah lan nga fi wut car maa mooy Cheikh euh, lan nga dundee saison Euh, c'est une saison vraiment riche en émotions. C'est une saison euh, vraiment riche euh, en contenu et en suspense et tout. Euh, karma, on peut dire que c'est le karma de tout le monde. Nous savons que nous sommes Donc, nous série nous euh, te on a réservé le meilleur pour la fin. Donc, nous tout à l'heure nous suivre les Inch'Allah. Est-ce que tu as Finalement, je sais ko je vais Comme nous l'avons dit, je vais ko mën a de donc comme jéem nañu fële jéem nañu dundee espoir que ne euh, avec Ami peut-être euh, dina retourner vers ñun et tout mais euh, on va dire que ne dañ leen di bàyyi ngeen seetaan dernier épisode bi voilà boo leen seetaanee dernier épisode bi di ngeen xam Alioune Seck fan lay mujjee ak Amy Léa. teewul nga joué ko nga réussir ko aussi bon parce que en tant qu'acteur on essaie d'être euh, jéem a diversifier suñu bopp de telle sorte que n'importe quel rôle bu ñu jox rek ñu mën ko adopter mën a dugg ci personnage bi comme ça mën a remplir role bi comme euh, comme il le faut donc ak Marodi euh, c'est toujours des surprises dafay relever dafay révéler talent acteur vraiment donc ça te pousse à à réagir ça te pousse à aller de l'avant ça te pousse à te perfectionner parce que c'est une production vraiment grande et vraiment ngi profiter ci bi tamit di leen féliciter di leen encourager école bi est-ce que amoo ci ay retour ñu woo la naan bàyyil amilaya ak magie wala chaque jour ñu taakale ma chaque jour ñuy ñëw ne ma bàyyil amilaya ku ñëw ne ma amilaya dama ko nopp may leen ki ngeen nopp maa leen ko gën a nopp donc bàyyi leen kook man rek Sénégal jëm kanam mais quand même c'est vraiment magnifique di remercier téléspectateurs yi di remercier tout le monde parce que ñu ngi ñuy soutenir di ñu encourager malgré que dañuy bëggoon couple amilaya ak euh, Majib mais quand bu ñu ñëwee wax li ñuy wax tamit dañu lay féliciter la xam ne série bi moo demee noonu liggéey moo demee noonu merci à vous aussi. <laughs> asalaamaaleykum. waaleykum salaam fay naa leen bu baax. waaw monsieur l'inspecteur laay wax wala mu doon. waaw boo ci jël rek baax na. est-ce que da jàppale Abou. waaw Abou ah ñu ngi si ginnaawam de ñu ngi koy rëbb bu baax a baax ah. waaw. kenn yow tiitoo ko nag yow nag yow yaa fippu nag ne da nga. ah ñun ñu dara ñun na ñun na leer rek waaw na leer. nan nga dundee deuxième saison euh, euh, Karma am ay kii euh, rebondissement ci série bi luñ ci doon xaar yëpp ñu gis ko si wax dëgg yàlla ñëpp kontaan ci nan nga waaw tout d'abord ñun bàyyi ñu remercier ñëpp ci seen engouement ak suñu ak ñun ñu ñu toppee ci série bi et que comme on dit rek rebondissement yi ça fait partie waaw c'était quelque chose boo xamante ne c'était c'était tout à fait normal xaaroon nañ ko mais xaaruñu ñu woon comme ni mu amee et c'est tout à fait ça c'est la c'est la beauté du cinéma en tout cas daal nice le cinéma noonu la demee ko macha allah. ci beneen aspect police ne des fois dañ koy tënk ci ay enquêtes yoo xam ne nit ñi borom doole yi dañ koy tënk ba duñu mën a avancer. waaw en fait on a voulu marquer le coup sur ce domaine là parce que comme on dit la corruption elle est là elle est présente gars yi ñu si ëpp doole ñu si ëpp xaalis ñoom ñooy détenir pouvoir bi ci lépp donc on a cru bon que defee ko noonu mooy li war quoi wane un autre aspect des gens de la police. et voilà c'est très positif loolu la ñu soxla woon quoi. Abou di ngeen ko jàppal ci fin de saison bi oui ou non. te maa bañ te te te maa ngeen gisal ko seen bopp. waaw mu nekk surprise bu bu bu neex waaw surprise bu neex kontaan na bu baax merci beaucoup.